Rahimalik Low, the mayor of Banjul City Council, have claimed that the government has denied her rights to render support to the Center for Children in Bakote. The BBC mayors, through her Women and Girls Initiative, intended to present a check of $350,000 to the Center for Children in Bakote, designed, okay, designed to the construction of boreholes and face masks, amongst others. juude loolu la gars yi jot a de. ah yaa ngi bi. yóbbu nañu London de dafa bëgg a indi bi fii. waaw waaw. ah London mu ngoog. <laughs> mel ni man ak gii di si. yow moom Mama Kane dina la yóbbu. waaw keñ. waaye ah, apologize naa la so. Um, Wow, mayor of Banjul uh, Rohey Malick Lowe BCC Lo mu muneka loo xam ne am solo torop uh, lu mu di wahdal, allegation la fum mu nekk nii I don't know whether government be respond na si story be or not. Uh, ma um, government be respond na angum, because dafa yeah. the dem si ministry be wai ganyo ni mu so poor mom, it is surprising the government be, under the ministry of um, children and women Affairs, What na like the support boobu noonu fan la ko wara well uh, xam nga yi government la te yi government daal dafa bari ay procedures mm, ay you know sometimes waaw transaction bi ak daf daf dee mun a yaga, doo mun jump rek ah, nga render support like that dafa am channel Bohamne, you have to go through and everything mm. but gesture bi um, it's very important supporting children because children are the future te i am solo it is only prudent on everyone it is a duty on everyone pour support ñoo xam ne magi elegi dineka. di nekk uh, te Rohey Malick uh, Women Aid and Girls Initiative am they have been she has been helping so many women and girls on so many things, entrepreneurship, business and other things yoo have ne daal even scholarship packages uh, for young girls so mu nekk have xam ne i am not solo waaye nañ ko def have rek fu mu nekk nii daal ñoom rek fa nekk moom mu fa for the interest of the people the government also is there for the interest of the people I want to believe. but but ah? the interest of the politic also daf the indi they want to override the interest of mm. the. of of the people. te loolu sax moo fa gën mm. bari sax loolu moo fa gën bari because lu bari xam nga man loolu mooy problème yi nguur bi gis nga nit ki su indee loo xam ne dafa am njëriñ si askan bi bul xoolati fu mu bokk seetal njëriñi askan bi waaye li li gars yi di bañ mooy impact kii loolu mun na ko ekkati ba place boobu ñun suñ suñ nit di ko mën a jotaati mhm. calculation boobu mooy tardé lu Afrique yi bari soo soo bari na fi because am na si nga ah. xam ne ni projet yi bari mu ngi fi feeñ yoo xam ne ni nit dem na bu ko de way bu ñu gis ne boko si kami government bi rek dañoo gis ne bu ko defé darajaam mun naa yokk te loolu mun na lu nga ne li li li ñoo ñakalo suñ nguur la te nguur mo fakk mu jeex gis nga nak nit ñi dem war di wax président yi fa tok nguur dafa jeex nga dem président jamé 22 years ku foogoon na dina fi joggé dem na banan suma dekk bi nangam so tay nekkul fenen fo xam ni xamul seen aada ak seen ciisan so mo tax nguur dafa jeex waaye bu nit indee xalaat bu nga xam dafa yok askan bi welcome ko nga dimbale ko si mu dem soo loolu du tere soo waree toog si nguur gi di nga fa toog te bu sa time jeexee dina jeex su ko defee askan bi gis bénéfice waaye da ngay gis lu am njëriñ very important but ku ko ku ko présent individual boobu suñu gisee ne bokk si ñoom rek pour daraja mun na see écoute rek ifine bu 95 pour cent bi nekkee bénéfice askan bi gars yi dinañ si teg brique de gàtt si loolu fu ko gars yi na war nañ ko wax nit ñi waaw loolu daal su dee ne loolu moo nekk di am daal I think loolu uh, dafa ñaaw te amul du andi développement in the country so fii daal bu ñu bàyyi politique bi fu mu nekk nii. politique taxawu ndaw ñi nag taxawu ndaw ñi xam nga am na yu passé yoon Gambie nag ay ñetti fan rek ñu fàtte ko fi. Eh. yëf yi yëf yi kenn xamul ñu doon def xale yi noonu te yooyu xam nga stop nañ yooyu yëpp. Mm-hmm. bànneen mm-hmm. loolu nañ ci gën a def investigation te dañ bëgg a soxla loolu. Mm. investigation boobu recherche investigation Gambie nag moom. xam naa ne si trois li la jee mujj am na <laughs> dañ ko dee dégg rek waaye ah, end result bi daal kenn du dee xam. fu mu tam ñu ne police yi nga investigate waaye result si hmm. ah result moom balaa ñu ko dee jot moom mooy loolu.